Euh, amee leen vote bi euh, dañu def non seulement vote sans débat mais euh, ne li nga xamné mo nek sax les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. et finalement la gendarmerie. la présence de la gendarmerie foofu la bëggon ñëw. l'Assemblée nationale draine ce que l'on appelle péché originel. n'oublie pas à son installation. Ah, il y avait la gendarmerie. il y avait la gendarmerie donc péché originel la daf leen di top ba faaw mais. Euh, pourquoi député euh, députés opposition non? parce que euh, il venir tous les sénégalais voyaient venir même les députés yi nga voté c'est un recul démocratique Ils ne c'est une forfaiture mais comment faire Si da nga and ak nit ñëmé pas wax dëgg. Mhm. da nga and ak nit buy jalgati yoon nga ah finalement. Mais la présence euh, euh, des forces de l'ordre, pour ne pas dire la gendarmerie, faut laisser hémicycle. Mhm. Est-ce que loi Mayenne nous intervenir euh, sinon nous c'est l'Assemblée nationale Oui, le règlement intérieur de l'Assemblée peut le permettre, mais image bonne, euh, image pour rafetoul, pour taralou la démocratie sénégalaise. Mmh. Taralou du tout. Et puis, voilà, gendarmerie c'est l'Assemblée. Euh, bon, euh, Mamadou Dia daanaka looloo taxoon ñu diñ ko coup d'état parce que il avait empêché que les députés euh mën pour voter une loi dont il euh, juge euh, antidémocratique de le discuter lui Mamadou Dia Bon défé faire l'homme euh policiers yi dugg ci gendarmerie ba ci assemblée ba ben finalement lan moo ko ci fekk Kédougou diñ la coup d'état et cetera xam nga coup d'état sax dafay ngay fekk benn régime en place nga daaneel ko parfois mën nga bañ a fekk régime bu nekk en place euh, nga ñëw dadis par exemple putsch oui parce que y' a pas de y' a pas de y' a pas de régime bu mais mais mais mais pas Moussa ces députés yi nga xam ne mën nañu wax ne ñoo def forfaiture bi est ce que ñoom jàpp nga ne mesurer mesurer nañ conséquence de leurs actes parce que on a vu si assemblée nationale euh, pour ne pas le citer farbangom euh, mom de l'ancien sax euh, Adamo est-ce que ñom xam carrément pourquoi ils sont là. en tant Adamo. il était en pleine séance. Mhm. ñu gis ko moom dégluwul sax carrément. Adamo c'est l'insulteur là. voilà donc ça veut dire que ni xam nga ne kooku wax deug yalla ban dose de patriotisme mo nek fofu non ñu tok assemblée nationale. la représentation populaire ngay seetaan quatre quoi oui oh, les les images sont là. ah voilà ku nek ak niveau qui rek lit li niveau fille le niveau de toi. ku mhm. nek ce ak niveau Mon niveau vie là dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es il fréquente Adamo donc voilà c'est la même c'est ça c'est ça oui oui. tu vois comment il admire <laughs> non député de la de tu vois dafa mel ni quoi quoi. <laughs> oui ku a rek euh, wax ma sa xarit wax la ki donc euh, ils sont de très bons amis apparemment c'est bien <laughs> fii la Sénégal toll. c'est-à-dire euh, c'est ça quoi. ñun suñu assemblée nationale mais vraiment on doit non on doit ouais mais justement sinon allier les deux pleurer rire vas-y. <laughs> xam ça c'est catastrophique quand même. Hmm? tu penses que euh, qui euh, sérieux comme ça. <laughs> à l'Assemblée nationale deuxième institution de la République. je te nga da nga peuple bi ñu war a taxaw di exercer une forfaiture aussi grandiose contre le peuple nga toog fii di seetaan adamu voilà donc ça résume toute la situation cette affaire là. waaw mm-hmm. ah oui kii tax dara la ko saf kii kii yàlla toppee ko dara di. mais waaye peuple bi toppee na ko dara. non kii moom ci boppam sax daal mi ngi noonu rek parce que peuple bi daal lay toppee kii à un certain moment même buñ la yóbbee euh, justice est-ce que ça peut bi baax pour appliquer l'article 50 du code pénal démence ça exonère de la responsabilité pénale mais bon nous ñëpp faluñu leen ñun président Macky Sall leen fal. Mhm. ah oui léeg-léeg kii xam nga il ne donne aucun crédit à ce qu'il dit à ce qu'il fait actuellement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale donc comme je mi koy def xam na ni lii ñuy def nii sox amul benn askan bu ci yow exécuter une commande politique pure et simple loolu la. bu toogee Adamo lay seetaan kon moom xam na ne lii ñuy wax nii amul benn njëriñ lii ñuy def nii amul benn njëriñ askan wi mais dinañ ko def parce que tooguluñu fi njëriñu askan wi. Mm-hmm. waaw ñun daal nañ ñu wax ñu def point final. point final et en même euh, pendant ce temps euh, peuple bi nga xamné ne mën nañu wax ne carrément ñu non xaar euh, li nga xamné mo nek élection présidentielle bu 2024 bi nga xamné nek na élection bo xamné bari won na enjeu bu baax mais on a on va encore cheminer avec le président de la République Macky Sall si diirum at loolu noonu ñu ko décidé moo nekk parti démocratique sénégalais ak ki nga xamné mo nek Berno Benno Bokk alliance Benno Bokk Yaakaar wàllu si bir li nga xam mo